ganaar kenn lekkatu ko ndax saaku ripaas saaku eh, ang eh, kii eh, pour ripaas mu ngi daan jar quinze mille léegi mu ngi jar vingt deux mille vingt astafurla vingt et mille moo tax ganaar ab rupture moo tax ma ne da a comp li ngeen wàññi damaa bëgg ngeen ñëpp ko ndax dañoo sonn ku leen waxul loolu rek day wax leen neex ñaari benn cube Maggi vingt cinq la daan jar tey ñetti cube Maggi la ñuy jaayee ñaar fukk si ngoom mentos bii benn bi juróomi dërëm la doon jar léegi ñett yi ñu ngi koy jaayee cent franc waaw kaani nag fu ngeen ko fàtte kaani neexal ñam bi boole leen ko ci ak foobar ministre du commerce ma wax ni pàkku làmbaay bi nga xam ne dafa lakkoon te ay nit di ca di ca liggéey nag ay commerçant surtout nag fi ma dëkk muy bawol bañ tuddee ko pàkku làmbaay bi mu lakkee ba léegi dégguñu dara lu ngeen ci xalaat parce que ñooñu tam ils ont besoin de de de vendre ak di def seen activité euh, activité ma wax ni dégg naa ci pikin kon kontaan naa dégg naa ci Pikine comme kon kontaan na dégg naa ci marché Sandaga nag bëggoon naa ko wax waaye gis naa ko ci affaire bi kon kontaan naa ñiy jaay nag fëgg jaay ñoo gën a sonn sama mbokki séeréer yi ñoom rek ay jaay fëgg jaay dimbali leen leen organiser leen wut leen fu ngeen leen teg moo gën ñuy étaler seen marchandise yi ci buntu tali bi nit ñi di ci jaar c'est pas hygiénique yow tam doo ma bàyyi nag yow tam waaye lu mën a def